qu'un chef de famille reste un chef de famille ndaw yi ñuy déglu ndaw yi ñuy déglu te am mooy jur bu góor boo xam ne ils sont dans les maisons et ça existe Benoît nga xam ne ils sont victimes d'injustice ñu mën a defar defarwaat dem féetewoo ci seen bàyyi ngir boole la kook seen yaay yedd seen waajur bu jigéen ngir famille bi mën a booloo man loolu laa wax mhm. un bon chef de famille mhm. qui est maltraité et qui n'a plus rien ba tax ñu jël darajaam sipp ji ko mhm. su fi ça existe ah, ah a le droit à ces gens là jigéen yi nañu ànd ak ngor ci seen i woy ci kilifa yu góor yi bu dee doom la nag ñuy nekk di fekkee benn injustice bu seen waajur bu góor di dund ñu jël ko nag defaraat famille bi parce que doom mën na defar diggante ndey ak ak baay xam nga li fi xew léegi nii nga xam nii dafa jóg xam nga lan moo ko waral mhm. parce que li ci biir kër yi loolu la ñuy waxtaane te noonu lay demee ci kër yi c'est normal li am c'est normal parce que papa li muy wax nii dafa nekk loo xam ni lu wér la loo xam dañ ko gis euh, coach aussi li muy wax wér na ku ci ñun ñëpp ku ci nekk li ngay wax. dafa mm. nekk ci kër yi. donc bu nekkee ci kër yi ñu indi ko fii ni muy jaxee ci kër yi mais ku nekk li ngay wax boo ko gëmee soo ko gëmee te nga dund ko te nga gis ko suñ ko waxee fii rek mënul ñàkk loolu faaw loolu day am. Mm-hmm. waxuma nag ñoo xam dañoo toog di théâtre parce que man li may wax nii am na ku may seetaan rango ñoom dina daanu ci dënnam. Mm-hmm. surtout ki ma lay wax naa la balaa ñu noosu rek jënd jënkiin. léegi mm-hmm. léegi àdduna ak li ci biiram mi ngi ci loxoom yàlla teg ko ci loxoom. mais day toog di ko nettali di jooy. kooku su dégloo lii danaan waajur bi papa di wax de bokkul ak sama waajur mhm. man sama waajur xaw ma ko woon sama yaay moom ma ko xamale ak moom yaay boobu ak a baax am na ni mu amee comme jigéen ñi ngeen wax nga xam dañuy toroxal seen jëkkër yi yéen a ko wax coach wax la ko sànq mhm. yonent bi dafa ne mën nga cee tànn ñeent mhm. am na góor yoo xam duñu dugg fa amul dara ni ma ko waxee sama sama sama kii bi ay mango lañu foo leen gis rek ay weñ lañu foo leen gis mango ñu teg ndeysaan góor ñu naan Seyda xam nga ci war a mais aisance mu amee xam nga yeneen bi dafa xam dafa maanaam yàlla xam ne nit ñi yeneen bi moo ñu jàngale mm-hmm. am na ñuy takk la wax waxul de waxul leen waxul dem leen dem leen nga def ko de mm-hmm. am ñoo xam ba dañ ci tekk jiin sa parce que dafa am xaalis mm-hmm. alal am na ci ñoo xam ne léegi da ngay dégg góor ñu di ko wax pareetuñu pour yor jigéen dama naan looy liggéey mhm. ñaata ngay fayee ko sa fi nañu te dëgg man ñaata nit tey ñëw ci man din ma utal utal ma soxla bi bëgguma ko xam mais li ñuy wax làmbatuwuñu bëgguma ko amul dara ma ne ko loo bëgg mun a fu may jaaxaan defa lekk ay ginaar ah. waaw <laughs> billaahi man mii ay góor yu bëri ñu ngi may wax woo utal ma soxna mais soo may utal utal ma sa ñooñu nga xam ni dañu am seen oto am seen kër kër gi du bari ay xale su ko defee suba ñëwee mën a tëdd noppal man noppaloo laa bëgg loolu mais ko est-ce que pare pour pour. Hmm? est-ce que kooku loolu du góor yàlla. Hmm. est-ce que moo tax ma ne kooku du gentleman kooku est-ce que pour yow jigéen. am na fi góor yoo xam balaa ñuy takk jigéen day fekk jigéen boobu dafa am dara. ko lekkee ba mu set comme li papa sànq ni mu amee ay jigéen yu goreeti jigéen yoo xam ne. Hmm. man am na benn jigéen boo xam ne ci hôpital hôpital jëkkëram dee na fekkewu ko jëkkër ji tëdd na ci lalu hôpital bi feebar. billaahi dafa dem ndox yi jëkkër ji dee ci gannaawam. ñi nekkoon ci hôpital bi ñoo ko defal li papa wax nii dafa ko woo médecin ni leen paa bi génn na àddina tellement que ndaw si dafa dafa doy waar ba ñu nekkoon ci hôpital bi maa ngi demoon benn hôpital di seet sama rak falaa fekk kaa boobu ñu ma koy expliqué. Mhm. jëkk ji gaañu na te fekkee wu ko tellement que faale ko tab feebar bi mu am faaw ñuy assister paa bi. Mhm. parce que guddi gi day am yu muy def ak yu mel noonu xam nga rek teel la ñu nekk. Mhm. mais daf ko fa bàyyi paa bi ci gannaawam la faatu kon kooku kenn waxu ko. mais am na fi ay jigéen am na fi ay góor yoo xam ne aussi dama ni la duñu dugg fa dara nekkut pare wuñ sax pour yor ay ay ay ay jigéen waxuma la ak yor ay ay ay ay ay ay ay doom. kon mais comment ça se fait que problème yi entre waajur yi law ba ci chef de famille bu isolé. muy law ba ci doom yi. Mhm. dem ba yow maanaam tey ma joxe exemple. Mhm. mën nga tooñ ndey bañ a tooñ doom. tu vas voir un père de famille par exemple buy jotee ak jabaram tout temps. Mhm. mais lépp lu ko war mi koy def ci digganteem ak doomam. doomam yi ñu koy def. nañ ci def mais bu bu isolé jotee rek. nañ ci bàyyi xel nag yaay ak doom saa bu ñu taxawee rayante rek ci kanamu doom toj nañu gàllaaj. papa papa papa waaw yaay ak ak ak ak ak baay. ak baay ok. saa bu ñu taxawee ci kanamu njaboot. ok xeex mbaa ñu xuloo. ok toj nañu seen gàllaaju doom loolu olof moo koy wax rek waxin la. ok mais jigul doom yi waaw jigu ko. parce que nag nañu waxante dëgg xale bi faaw mu am fu mu far. waaw faaw mu am fu mu far. te en général ci yaay ji lay far. donc am na ci ay ay waajur yoo xam ne diine waxul neutralité bi diggante ñaari waajur yu jotee yow doom da war a neutre wala da war a neutre ok maanaam waru fara kenn mais sa dama ne la faaw yow yow fekk fekk sa papa sa yaay ah, man ma fekkoon sama papa chaque jour muy dóor xaw ma sama papa moom daaw ko def mais su ma doon fekk sama papa muy dóor sama yaay chaque jour di ko ko dóor dinaa dinaa jàngee ay alquran boo xam dinaa ñu ne papa yàlla de nee na lii ak lii ak lii mais doo ko pes dee nootu xalaatuma ko. <laughs> mais bu dee contraire bi xalaatuma ko. su dee mais dinaa fexe ba jàng benn aaya ñëw ci wetam ni ko papa. yàlla de nee na nangam nangam ah, même moom même soo ma dee dóor sax man ma dem jooy. te nañu waxante dëgg rek nag. yaa Seyda bu dee contraire bi bu dee contraire bi leen. comment. jigéen bi sonal góor gi ci kër gi rek. waaw doom yi gis ko teg ci seen bët. ah am na bu boobaa doom yi nan la ñu war a def. loolu tam am na. am na ça existe. loolu tam am na. ça crée des personnes. mais tamit ku nekk yaay seet fa la ca neex rek a taxaw ca ah kii des personnes faibles. Ah, Safia. Mm-hmm. xam nga man su may wax dara dama koy bés bu ma yàlla laajee ndax yaa ko fekkoon ma ne ko waaw. Uh-huh. am na am na rek man de yi ma gis àdduna ak fi ma jaar yëpp mun naa fi citer quatre cent dix mille part maire si jamono ji nga may wax musuma fa gis ay maltraitance musuma fa gis loolu. Euh, téléphone bi s'il vous plaît waa Régie comme ça bu nit ñi duggee ñu mën leen jël am na père de famille sonn de. mais am na am parce que man j'ai eu des témoins. non am na non j'ai vu bu fekkee yéen gis ngeen. gis nañ ko na gis ngeen. non am sama wàllu bopp. waaw gisuma. trop. ñu ne paaba dañ ko isolé paaba dañ ko def lii. am na de. alhamdulilah bu amee yéen gis ngeen mais man gisuma ko. parce que ma trahi ba amee laay waxal. am na am na am na fi. par contre. li may expliquer. di ne lu tax góor boo demee ba ñàkk sa puissance. c'est que yow am na loo xam ne pour man yaa ko war a en tant que homme sàmb pour ëllëg. sàmb boobu xam nga mooy lan mooy yow en tant que góor sax war nga dem ba ne ñaaw njort ne. su fekkee dañ ma nar a isolé am na xam ne man dinaa ko mënal sama bopp. en tant que être man boo xam ne. mais c'est pas évident pour tout le monde daan ci ñëwaat léegi xaaral ma jël téléspectateur bi. Ah, s'il te plaît. 88 628 89 90 ñu essayé jël de ce yaa ngi si jàmm. maa ngi sant Soufiane. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax. ça va ça va waa di kontaan ci yéen. merci beaucoup. Aida sama soppe maa ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi lay ziar bu baax soxna si. maa ngi lay dellee del delloo sa waa père. waaw papa wuyu. maa ngi ziar noo def. maa ngi sant alhamdulilah. papa day ree sa ree la ñu soxla ñun ñoo loolu ñuy dundal. waaw bëgguñu ko kii. mais mais dama bëgg a tëdd ci canapé bi ndax sama xol mooy metti. non del ree rek. mais papa daa am benn affaire bu ma la bëggoon a ñaan publiquement ci télé bi. publiquement. waaw ci télé bi. wallahi yàlla xam ne sooy daaneel may dem tëdd ci canapé bi sama xol mooy metti dara jëy borom Tuubaa dama bëgg nga bàyyi li ngay wax naan xale yu jigéen yi beroo ak seen jëkkër ci appartement ku tukki ñu rees sa ginnaaw. dégguma. wax boobu. dégguma. mu dama dugg ba sonn mënuma la jot. dégguma la di yëpp jeex dégguma la wax nga ne jigéen ñi beru ak góor ñi seen appartement wóorul. seen jëkkër yi wóorul parce que ku tukki ñu rees sa ginnaaw. dama ne am na ci ñoñ. Mm-hmm. ay sénégalaises lañ. te dañu am loo xam ne du suñu culture xamuñu ko. ay ay infidélité yooyu noonu ñun dama ne bokk ci ñun bi suñu éducation de base xamuñu ko. loolu kañ la. dimanche passé wax nga ko loolu moo boobu moo taxoon ma naroon dugg waaye du la ne. man maa ne da ngeen a infidèle. non dafa non waxuma dañoo infidèle. Mhm. comme ni nga waxee pour appartement yi laa la wax. ñoom kese mm. yenn saa yi ñuy suufu seen borom kër yi. waaw bu loolu. nee na loolu bokkul ci dama am ay doom yu jigéen. Mhm. xam na j'ai na la fois passée. da nga waxoon ne am na ñoo xam ne seen sëy yi ci appartement yi lañ koy defee seen borom kër yi nekk extérieur yu nekk feneen yenn saa yi ñu seen borom kër voilà ah d'accord mais loolu bu bëggatoo ma wax loolu déedéet déedéet waaw dootuma ko wax parce que rafetul kii ñun suñu image ñun ay sénégalaise lañ waaw dootuma ko wax waaw waaw léegi yaa Seyda tey moom dama ànd ak à cent pour cent da nga ànd ak yow à cent pour cent ah tey ah même Benoît parce que je me dis que nit ki lu mu am ci avenir am daal mu récolté ko ci passé moom. dëgg la benn cinq minutes nga ñëwaat. non ci kaw que. bàyyi sa caprice yi. soxna si waaw soxna si wàcc. waaw ñu ngi jégalu maa ngi jégalu. ayca nañu xaar soxna si soxna si ah, papa. Sophia si vous vous rappelez man maa fi woote woon ma ne la sama jëkkër mu ngi nii tëdd sama wet. waaw maa koy fàttaliku bu baax. en douze ans de mariage il n'a jamais rien fait pour ses enfants xamul doomu école doomam yi lu ñuy fay école. maa koy fàttaliku bu wér. douze ans. mu ngi tëdd ci wetam. malheureusement xaw ma heureusement pour man finalement on s'est séparés. Ah, yàlla def na li gën parce que à ma grande surprise j'ai appris que ne dafa am doom sama biir koñ. mu ni. mën naa tolérer lu ne ba mu des loolu j'ai tout. ootee nag ñépp nee nañ ne woon dama dof daf ma liggéey dama ñàkk fayda amaana àpp bu yàlla moo deful woon àpp bi pour mu war a jeex day jeex ndax say bakkan la fu mu war a yem day yem mais kii kooku mën ma dundal loolu tey ay doomam gis bu ñu màggee ma la yàlla def doomam yi tekki malgré ñu am seen kër mënuñu ko bàyyi dehors ñu bàyyi ko mu duggaat ci kër gi est-ce que respect bi mu war a am cër bi mu war a am nañ ko. Mm-hmm. ça. xam nga c'est mm-hmm. moo tax li ñu wax ne comme parent bi def li ko war yëpp ci bu demee ba ñu beddi ko y'a un dessus roche boo xamante ni kenn waxu ko. Mm-hmm. wala bu fekkee am na bu yaay ji lu mu baadoola baadoola. ñàkk ngor ñàkk ngor doom ñëpp ñu koo topp ci loolu. Mm. il faut mu am koo xam ne dina tourné pour taxaw teral papaam parce que amul benn bienfait que ne day ñuul ci àdduna. man sama gis-gis laa wax man daal je libre. non aussi yaay bi benn instant am na foo xam ne mën na fa jouer. Mm. parce que man nii di wax ak yow étant jeune je me taxaw naa ma ne sama dama feebar jëndal ma. ordonance mu ne ma amul mu jël sama doom baay may ko paasu màggal quinze mille francs te man deux mille francs laa ko doon ñaan ordonnance mu bañ hmm. Hmm. mais ça arrive ci famille yi hmm. xam nga li ma la wax sama papa mosul xam sama kaye lu mu jar sama yaay da doon jaay ma pour jëndoon ñu ay kaye ñun man trois mois vacances mosuma fàttaliku fu ma ko feetoo dama doon dem liggéey mindaan promotion amul lu ma deful et pourtant papa maa ko tabaxal këram maa ko yóbbu màgg ci sama loxo yi la noppaloo. wallaahi macha allah. yaa baax waaye te gore. tarka. madame. maa ngi jégalu. ayca ñu ngi ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax a baax soxna si. ñu ngi jégalu bu baax a baax ayca 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 ñu jël téléspectateur bi ci to salaamaaleykum. ñu ngi lay tëdd. allo allo allo.